maa tuddu Babacar Seck. Babacar Seck. en tant nga nga ni si biir Darou Khoudoss nga bi nga xamante Ben lampe mu image rafetul ci Touba ndax Touba dafa yayo lu upp li buñ sokkandiko ci waxe borom Touba te ñun ay taalibe mo fi ne ñun suñu biir la dëkk bi kiñ ko jox ab talibé la.

du ñoom la Abdou Lahad Ka di rendre compte déedéet Serigne Touba lay compte parce que ab dëkkam nañ ko jox ñun dañ fay nekk rek loolu la. kon moom na xam ne ndaxte bañ bañ ko fi teg dañoo bëgg mu liggéey mu liggéey Touba lu mu dee mu xam ni moom ab taalibe jox nañ ko matuwaay yu war a mën a liggéey bu fekkoon dañuy aw ma matuwaay yu ma mën a liggéey mais jox nañ ko matuwaay yu mat sëkk yu mën a liggéey am na xaalis am na fi dofuñu ñun ci dëkk bi lañ dëkk. te xaalis te xaalis boo ko yoree loo bëgg a nga ko mën a def te Touba Abdoulaye Ka dë maanaam keesam am na loo xam ne boo ko bëggee liggéey Touba mu liggéey ko kon am na xaalis pour liggéey bari naag bëriwut na def rek ñu xam ne def na mu ngi jéem mais nag bu fekkee dañ la jox dëkk bu toll ni Touba bàyyi woo xel lu bari sóoraale woo liggéeyoo wax dëgg fa yàlla loolu day nekk na loo xam ne ñun suñu biir fekkoon dañ ko jox keneen sax nga mën a wax mais ñun suñu biir loolu dafa ñaaw. Xudus ñi nga nekkal ci mairie bi Daaru Xudus ñu leen nekkal ci mairie bi man de ñooñu duggantewu ma ak ñoom li ñu wax waaye defuma ko ñoom pour xam ne mais li nga xam ne moom laay gis ci mbedd mi nii parce que dëkk bi laa dëkk dëkk Daaru Xudus di dox di gis ci mbedd yi dëkk bi lëndëm tëris ba guddi da ngay jàpp ne làmp amu fi fu ci bari te que loolu insécurité bi muy jur xam nañ ko ndax àdduna moo toll foo xamante ni sécurité bi fu ñuy Touba statut ville après Dakar dañ naan Touba nañ bàyyi xel lool dëkk bi dafa war a tàkk dafa war a leer nit ñi fi dëkke dañoo war ab dañoo am àq que fi ñu nekk ñoom dañoo war a sentir seen bopp am nañ sécurité fi ñu dox fan la heure bu la neex nga dox ko wala bu am na fii am na heure yoo xam sax boo koy dox fenn fi da ngay xam ni yow fii yaa ngi dox fii mais wóorul loolu lépp nag du ci man du ci keneen ci kiñ jox dëkk bi la ndaxte man loolu moo ko bëggoon te moom mooy mënuma ko waaw kon ci moom la. tey li ma koy conseillé xam nga ñun ci ñun ay murid lañ ci ay lu ñuy wax na teg ginnaaw rek mais nañ fexe ba li ñuy wax di dëgg donte jëmm ji maanaam mën na koo bañ a mate mën naa woyof mais nag li ñuy wax moom dañuy assuré que ni dëgg lay doon ab liggéeyam des na ci Touba ak taxawaay bi mu waroon am ci Touba des na ndaxte Touba waroon naa romb fii moom te occasion lañ ko jox ngir mu liggéeyal Serigne Touba lim am fii murid yu bari amuñu ko moom lañ tànn ni ko jiital nañ la jox la jox la matuwaay liggéeyal boo natee sa bopp xam ne mënoo dem nag war ngaa amaan ngor yi kala ko joxoon kala jéem naa fekk nga ñëwaat ni ko mënuma te yàlla tax loolu mooy lan mooy ki nga xam day jiital l'intérêt général ba ne jël l'intérêt personnel teg ko ci l'intérêt général loolu baaxul. te si yéen nekk fii ci Darou Khoudoss di jànkuwante ak lëndëm gi nga xamante si moo am ci Darou Khoudoss ndax bu ñu leen def benn mobilisation ngeen def ci ki nga xamante si moo ko jiite ngeen wax ak moom. mobilisation Touba dafa am nu muy doxee maanaam mobilisation mën nañ koo def ci yar ak teggin waaye Abdou Lahad Ka dafa am nañ ko fi tegee ci ni ñuy waxee kon ko ak feneen fi ngay dem ak nangam ak nangam Abdou Lahad Ka ñun donte sax demoon nañ wax ak moom ci war naa liggéey ak dëkk bi ni muy doxee yooyu bu fekkee mu amut pas-pasu liggéey du liggéey dafa am loo xam ne yow yaa ci man a soññ sa bopp ci gis image bi dëkk bi ni ni mbir yi taxawee lu bari Touba waroon ko ro parce que sëriñ bi li mu wax ci Matlabul Fawzayni du hasard dana am am maa ñii ko fiy def wala boog buñ ko fi deful dañu dana ndee ba ñëpp fàtte leen ñeneen ñëw def ko fi te nangul sëriñ bi ëpp leen wërsëg foofu gën leen ne yaatu leen kon mobilisation boobu du ko fi jaar dégg nga moom mooy natt boppam ba xam ndax liñ koy tege matti na ko wala mattewu ko Touba du feneen quoi du feneen foo xam ne boo gisul la naqari da ngay wàcc yuuxu ñun ci dañoo tënk da am ci lu ñu tënk te loolu fasuñ ko yéene euh, tinkee ko daal maanaam muy ay teggin waaw lépp ci ak murite daal waaw ci loo xam ne dañ ko teg ci yar ak teggin. jaajëf maa ngi tudd Moustapha Lo Ndiakhate nekk fii tuuba Darou Khoudoss. noo gisee lëndamaay bi waaw bi de moom naqari nañu torop ndax xam ngeen ne jamono fii sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma nekkee sax am na lamp yoo xam ne jëlewoon na ko fii ba France ngir bëgg dëkk bi rek leer lamp yooyu tey jii bu ngeen seetloo yóbbuwoon nañ ko fi ca jumaa ja ndax booba jamono yooyu booba dëkk bi demewutoon noonu Senelec ba lamp yu bëriwu fi woon moo taxoon ñu yóbbu ko foofu waaye bi mu demee ba ba ba ñuy sensé waat lamp jumaa ji di li leeralaat foofu ci jamono yi sëñ Saliou dañ ko indiwaat fii ci Daaru Xudoos bàyyi ko fi kon ak ak ak lëndëm lim mën a indi ci mooy réew insécurité beeg lim mën a jur ci ab dëkk dafa bari rawatina nag penc mi nga xam ne fi la Serigne Touba Cheikhoul Khadim suñu jàkka ji nga xam ne amuñu loolu moom bayti fi la gise woon yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne fa la jële yan bi demoon ci géej gi ba delsiwaat kon béréb boobu moom fépp fenn man naa lëndëm ci dëkk bi ba mu des moom léegi nag lëndamaay bi damaa xamul man suñ autorité yi ak suñ kilifa diine yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi nga xam ne ñoom lu xew ci dëkk bi ñu ngi koy yëg dañoo yëgu suñ lëndamaayu péncum Daaru Xudoos mi wala wala Senelec moom moo ci am moo ko moo ko war a régler wala loolu laaj ko mi nga xam ne moom lañ fi def muy président communauté rurale bi te boo demee ba ca bitim dëkk ba fii ne àll bi da ngay gis ci àll ay àll sax foo dara néew fu ñu dafa def ay lamp muy tàkk te boo ñëwee fii ci Daaru Xuddus gi nga xam ne te Touba moom mooy Daaru Xuddus Daaru Xuddus moom boo ci génnee Touba mën ngaa tëj dëkk bi léegi nag lu tax ñun suñ penc mi nga xam ne amuñu loolu moom mun ñoo defaral suñ lamp yi ba mu leer ah nun daal noo ngi ciy woote wallu ay taalibe rek lañ nag naqari noonu trop suñu amoon doole ak moyens yi di ko def ñoo fiy def suñuy lamp ba pare di ko fay par weer waaye nag mbir moom bu la naqaree da nga koy reeteet da koy jooytu ñun nag fii lañ ko mën a jooytoo ci réseaux sociaux yi ngir ñu dimbali nu ci suñ pencum Daaru Xuddoos mi lamp ñu delloo siwaat ko fi jar na sax ñu jox fi nit mu taal nga xam ne bu taal jotatee mu taal waaye at mu jot fii ne ñu jël ko jox ko commune moom lamp yu baax duñ ko fi def lamp yu lamp 10 000 bu ñu fa waroon def lamp 2000 lañ fiy def dara baaxu ci te bu màggal ñëwee la ñuy def koy taal bu màggal jàllee pare nañ ci du ñu ko kii kon daal bëgg nañ ñu respecté nu te fonkeel gi respecté wax sama ñoñ daane ne wàllu ak samay doom kon nag ñun ñàkkunu fayda kon nag bu nu ñàkkalee fayda it am na ci loo xam ne duñu ko nangu léegi nag appel bi may joxe mooy en tant que man jeune fii Daaru Xudoos Moustapha Lo laat ko man umu leen lu may wax moom man damaa génn ci moom moom ndax xam nga ne dëkk bii ñu ko jox nii mënu koo yor mënta yor dëkk ku mënta yor sa kër xam nga ne mënta yor dëkk xam nga nu war a def dem dellu ci entreprise yor dëkk bi dégg nga ma wax muy politique di ci boole bu mu fontoo nit ñi liggéeyu dëkk bi mënu koo liggéey mënu koo yor lëkk baa ngi nii foo jaar neuf heures ci guddi mën nañ laa rey amul benn sécurité waaw waaw am na ñun fii ay jamono daan fi ay camion waaye bàyyi nañ ko camion fi indi ne mbalit mi pour affaire mbalit mi sax yooyu yëpp bàyyi nañ ko fii dara lamp yaa nii fii ne bu nee gede am nañu màggal ñu dem sensé leen i bu jàllee lamp ya fay daaru xudus am nañu màggal daaru minam ñu dem monté bu jàllee mu fay yooyu lañ moo war a jeex ci dëkk bi nan nu wutal ñun jël ci taalibe sëñ Tuubaa yu baax yi nekk ci dëkk bi ñu jël leen responsabiliser leen te tekki wóoloo sëñ bi dara sëñ Tuubaa mi ngay mbubboo sax gëmoo ko yooyu moo tax dëkk bi am na taalibe yu ko mën a defar yoo xam ne suñ ko tegoon seen loxo tey jii lépp luy àq ak wareef ak dëkk bi xam nañ ko waaye gars yi fi ma fi gis moom lalum napp ak évité tey ree rek yàqum xaalis saax saax jurut jeex te tekkiwuñu dara ñoo fi gis waaw loolu nag jëmut kër man nag appel bi may joxe mooy bu fekkee ne mënuñu ñoo defaral suñ fii balaa yàgg dara naa dajale seen yëpp ñu baare mboolem ñeenti koñi tëli yi nga xam ne ñooy dugg Daaru Xudoos moom ke dara duutu dugg dara duutu génn ba keroog ñuy defar suñu lamp yi loolu laa fas yéene. man la Omar Diop responsable APR Touba Daaru Khoudoss di ànd ak leader bu ñuy wax Cheikh Abdou baali bisimilah. lan nga gisee gi fii ci Daaru Khoudoss moom ku ne xam na ne metti na lool euh, làmp yi daan nañ ko entretien sax ay moment mais gëj na parce dama defee na daal Daaru Xuddoos dañ leen a fàtte ci lu bëree bëri moo taxoon président Macky Sall liggéeyoon ci liggéey bu am solo xam na ne Daaru Xuddoos ah, dañ leena won ginnaaw mu dikk daal di jël responsable bu toll ne Cheikh Abdou Bali di doomi Daaru Xuddoos di doomi seen Cheikh Mbacke Gaynde ma mu daal di koy indi fii ci Daaru Xuddoos daal koy jiital mu jiital ko parti bi yëpp. kon nga xam ne Macky la bëggoon na ci loo loo xam ne si ne Daaru Xuddoos dinañ gis seen bopp ci ayam loolu moo waraloon mu mu samp fi Cheikh Abdou Bali. xam nga ku fi nekkal mairie man xaw ma ko de. xamoo ka man aw ma dara lu ma koy wax ndax Abdou Lahad Ka maanaam Daaru Xuddoos bi fi eh, fii daan taa biñ demee ba nga xam ne benn politicien ñu di ko wax Ablaye Ñaan biñ ko waxee problème mu maanaam fii dafa am ndox te day yàq lu bëri moyenne bi mu génne lu tuuti la muy cinq cent mille francs ab laat ka bi mu ko yëgee guddi la dawal otoom ñëw fa dikk bi mu dikkee dana dana lii mosuma koo yëg ci koo xam ne dañ laa dénku mairie nga ne lu mat nangami at problème bi mu ngi fa nga ne mosoo koo gis tanga ne yow yaa yor mairie bi xam nga ne kooku moom aw ma lu ma koy wax xanaa ñi ko fi teg ñoom la ñu war a waxal fi mu ne. maa ngi tudd Amina Fa Mhm. waaw lëndamaayu dëkk bi moom vraiment moom ëpp na waaw ndax dañu dañu baare pour en tant que ñun ñuy jaay ba yore place sécurité bi daal demeewul noonu maa ngi doon ñaan nag pour nag làmp yi ñu mën koo taal ndax dëkk bi gën am sécurité. Mhm. Amina teewal maire bi Darou Khoudoss waaw am nañu ma si xam am nañu ma si xamut aussi. boo ma ko gisoon moom leen laa koy njëkk a proposé lamp yi daal mu taaral ñu ko làmp yi surtout lieu public yi ak côté biir rue Gaynde Fatma lamp yëpp mu taalal ñu ko. waaw fii Darou Khoudoss moom daanaka euh, mën naa wax ne leeraayu dëkk bi làmp yi da baax parce que euh, mooy tax nit ki su dee dem mën a xam fi mu jëm. te même surtout dara daanaka comme sareet yeeg yooyu te sareet yi amuñuy signal daanaka da ciy baax pour yoon wi di leer ñoom ñuy xam fi ñuy jaar daal loolu dax loolu daal moom laa ci xam daal te loolu moom ñor na ma ci carrément. xam nga ñu teewal Darou Khoudoss ci mairie bi. lii. ñu teewal waa Darou ci mairie non ñooñu de bàyyi ci xel na ñoom moom. soo gisoon laata wax. ko wax ne ko bu fekkee fi nekkal ne wala bu fekkee moom fi nekkal nguur gi. war naa war a feeñal boppam ci réew mi ci dëkk bi surtout Touba nga xam ni moom daanaka lu ci bari bari moom bàyyi nañ ko ci xel war na cee mën a feeñal yeneen daal muy ci lépp nag ci côté bu nekk parce que xool comme wàllum set setal mi ci dëkk bi yu ci bëree baree bëri daanaka ñuy bëri waa daayira bi ñoo koy def wala mbootaay yeeg yooyu noonu te loolu da cee war a wane boppam carrément tout le temps muy seel tali bi noonu muy leer waa yooyu yëpp mooy loolu.